lieu politique publique yi mën nga def lu nekk mhm. mais mënoo soppi dundinu askan wi mhm. daf ñoo ñor moo tax ñu wax sénégalais yi ne ñu ngi ci leen jëm wax suñu section yi ak suñu coordination yi renouveler leen seen instance yi gis ngeen mhm. communiqué bi démb ba pare ñu wax cee jublu nag loolu nag vraiment pour man 18 mois yi dafa gàtt sax. pour bu ñu bëggee jàpp ñu ne candidat lañ jàpp au Sénégal. pour pour bu ñu bëggee sonal Ousmane Sonko ñu ne leen candidat lañ wax nga baal ma Moussa mais loolu dafa garaaw li mu wax moom. dina daa ñëw léegi amul problème dina ñëw. ah Ramatoulaye est-ce que gêné na la 18 euh, mois de la présidentielle euh, déclaration de candidature yi mel ne tulleeg mal defe naa noonu la ñu koy waxee euh, parce que quand Sénégal miin nañu bu ñu jëmee ci élection. Euh, Moustapha Diop bu nekk jóg ne dama bëgg a nekk candidat mais bu ñu nee ba ci pandaw ga danañ gis ne euh, en tout cas li Boun Abdallah Dionne waxoon la dernière fois cinq candidats du ko weesu. Euh, Moustapha je pense que man du ma gêné et puis ñoom même bu ñu ko déclaré wul de façon officielle. Hmm. mënoon nañu wax carrément que diw ak diw ak diw dinañu dem par exemple Pastef ñëpp tout le monde s'attend à ce que Ousmane sonk soit candidat. aar nag ñoom ñoom ñoo définiragul ndax ñoom hmm. ñu ngi leen di xaar ba tey te je pense que ñoom aussi war nañu mën a à 18 mois waxtaan comme ci mhm. législative la ñu jógee ak résultat yi nga xamante ne am nañ ko ci war nañu mën a toog déjà ba wax seen candidat euh, waa bennoo ak ñoom tamit nii wii nii non bi yàgg na ba nga xamante ni même 18 mois moom <laughs> war nañu mën a xam aussi parce que euh, Mahécole je pense mi ngi wax naan ba tey dee daw question bi question bi mhm. ba tey bëgg ko tontu moom vraiment pour wax ni seen candidat ndax dina nekk dina représenté wu nangu ci wax carrément avec assurance mhm. alors que Pastef wax nañu avec assurance xam nañu ni euh, ay primaire ak yooyu yëpp sax même buñ ci demee Ousmane Sonko mooy génnaat pour dem ci présidentielle bi. Mhm. maintenant euh, dix huit mois man je ne pense pas que que ça soit prématuré c'est pas prématuré du tout parce que ñoom déjà. ku ci nekk acte booy posé actuellement fi mu nekk nii yaa ngi dem di euh, xool un peu nooy charmer sa électorat am benn électorat bu la mën a topp. Mhm. accompagner la d' plus que déjà génn nañu euh, sànq Issa wa nga koy wax également ci waa euh, coalition taxaw. je pense que wax na ko ci début bi ba muy wax déjà ba muy wax candidat. Khalifa Sall décembre déjà. voilà donc déjà mhm. ci yeewi askan wi boo ko jëlee Ousmane sonk xëy na moom moo mujjee wax ni officiellement qu'il est mhm. candidat. Euh, kii wax na ko xalifa wax na ko ainsi de suite. Hmm. donc man. Euh, mais est-ce que quelque yeewi nekkuñu ci seen logique. parce que euh, Baro mi ngi koy fàttali sax et loolu presse bi ak Sénégal yëpp xam nañ ko. Hmm. moo di ne dañoo waxoon clairement ne dañuy ànd dem législative. bu ñu jógee législative dañuy garder. coalition bi la structure continuer hmm. mais ku ci bëgg a nekk candidat kenn terewul la ko demal nekk. Hmm. je pense que ci seen logique la nekk te euh, Ousmane Sonko daal dina ko préciser la fois dernière boo muy def déclaration de presse bi. wax na ko parce que boo muy wax dafa il a bien bi ci élection yi nga xamante ni coalition bi ñoo waroon ànd mhm. donc li nga xamante ni moom moo engagement bi ñu waroon jël ñoom ñëpp ku ci nekk matale nga ko léegi nag euh, présidentielle la ñu jëm ku ci nekk bu la neexee nga génnee sa candidature affiché carrément que da nga mhm. fas yéene dem euh, daal di xëccoo ak waa benn Bokk Yaakaar président Macky Sall alors maam Birame euh, le le risque ci ci loolu lépp mooy dañu jëm ci 18 mois de campagne électorale parce que de bu gars yi ko commencé déclarer candidature Ousmane Sonko wax na ko day ko day daal di wër mi ñeneen ñi dañuy def noonu est-ce que tey Sénégal am na temps wu nekkaat ci campagne électorale pour 18 mois encore. Euh, mais Moustapha on ne fait que rek la ñuy def ah ci comme ci lañ dëkk. <laughs> les façons euh, déclaration Ousmane Sonko bi je pense que dafa am euh, situation boo xamante nii moo jiitu yeewu askan wi. Euh, maanaam avant ñuy dem ci élection locale yi. Euh, euh, pouvoir bi dafa jëflante ak Ousmane Sonko dans le cadre d'un dossier. mooy affaire Adji Sarr bi. ba ñu gis réew mi yëngatu woon et tout yaakaar naa ne créé nañ yeewu askan wi dem élection locale dem élection législative taxul état bi renoncer à ce que mu indil ay jafe-jafe. à Ousmane Sonko. léegi man euh, lu ma xalaat mooy c'est tout à fait normal puisque euh, euh situation bi may expliquer nii léegi moo jiitu. Euh, la création de Yewwi Askan Wi. Mhm. te ñoom bi ñuy dajee au sein de Yewwi Askan Wi waxoon nañu ne dañuy ànd dem ci élection locale yi suñu jógee foofu dem ci législative yi mhm. mais bu ñu paree même si dañuy garde benn cadre boo xamante ne nii moom mooy contrôler le processus électoral. ku nekk ci ñoom am nga possibilité nga nekk nga déclarer sa candidature. Euh, te yaakaar naa ci seen biir coalition boobu ñaari nit déclarer nañ déjà seen candidature. muy xalifa euh, Sall ak euh, Mali Malick Gakou. avant Ousmane Ousmane Sonko nag li tax déclaration maa ngi koy wax bërki démb ci émission keppaar gi. Mhm. lu tax candidature am Euh, wuuteeg yeneen yi. Mhm. mooy comme moom situation bi ma doon wax sànq ne moo précédé création Yewwi Askan Wi da cee ba léegi te génnagu ci. Mhm. Euh, maanaam bu ma koy méngale rek dama koy euh, méngale ak candidature Karim Wade. Mhm. nga xamante ne ni bi ñuy def seen congrès waa pour def ko candidat. de leur parti. ma nga prison. ma nga prison et c'était trois jours. du verdict de la CREI. maanaam CREI ñu ngi joxe seen verdict. le 23 mars le 20 ñoom ñu organiser seen. Euh, euh, euh, congrès congrès investir Karim Wade comme seen candidat. te boo seetloo candidat Karim Wade la ñuy wax de 2013 jusqu'en 2019. ba léegi sax ba léegi nii sax. tout à fait am na ñu naan la si ñoom. Karim Wade mooy sunu candidat te bu ñuy wax loolu sukkandikuwuñ ci lenn lu dul seen congrès boobu nga xamante ni defoon nañ ko le 20 mars 2013. léegi nag li taxoon euh, euh, waa PDS accepté def congrès pour euh, teg Karim wàdd comme leur candidat mooy une c'était une façon de mettre la pression sur le juge parce que dès les que ñoom def nañu Karim Wade seen candidat ki nga xamante ni mooy def face ak la CREI mhm. nekkatul tout simplement Karim wàdd ancien ministre du ciel et de la terre bu ñu bëggee sax. Mhm. mais c'est Karim Wade. candidat du PDS candidat la présidentielle. Mhm. donc tey jii nii on peut dire que ne euh, Ousmane Sonko dugg na ci même dynamique boobu maanaam tey bu nekkee suba wala gannaaw suba indi nañ benn dossier boo xamante ne nii dañu ja dafa moom dafa jàpp ne dañ koo dañ koo yëkkati. pour mhm. barrer ko la route. pour empêcher ko mu nekk élection euh, candidat ba ce ne sera pas son Sonko en tant que maire de Ziguinchor. ce ne sera pas Ousmane Sonko en tant que mhm. député parce que nekkatu ko. Mhm. mais ce sera Ousmane Sonko en tant que candidat à la prochaine présidentielle. te bu boobaa le régime quel que soit lu ñu ti wax. dañuy jàpp ne rek du point de vue de la communication que c'est un candidat bu bëgg dem à l'élection présidentielle moom lañuy ñuy pour mu baña a wu. kon Euh, non non non d' accord parce que maye maye koor dans tous les cas affaire de stratégie la. Mm-hmm. parce que bu nekkoon ne bu nekkoon ne euh, dossier euh, comment dire Adji Sarr ça n' existe ça n' existait pas. Mm-hmm. xëy na tey on pourrait parler de de de précipitation wala de présentation de candidature précoce. Mm-hmm. mais xam nga may maa lay jox léegi exemple Karim Wade nga xamante ni. on l'a investi en 2013. alors que élection bi taxoon ñu investir ko. c' était en deux mille dix neuf maanaam six ans avant élection ba. Mm. moom ma ma ngoog nekk na candidat. donc pour dire que euh, euh c' est vrai que li nga xamante nii moo koy gën a motiver. Mm-hmm. mooy dossier yi nga xamante nii état bi mu ngi koy jël di ko teg. parce que tamit c'est de la politique. Mhm. bu ñu demee ba nga xamante ni moom jàpp na ne c'est des dossiers yoo xamante ni dañ koo fabriqué de toutes pièces c'est tout à fait normal moom tamit en tant que politique. Mhm. mu mu mu mu déclarer sa candidature pour am quelque ah, sorte un bouclier. d'accord Pape Makhtar c'est euh, acte politique euh, maye ko. ah dama ne wàcc kay il me rejoint. <laughs> non yow da wax pour chahuter. <laughs> non du tout du tout euh, lu ci ma dégg loo ci ma dégg acte politique la Ousmane Sonko posé. ñeneen ñi j'imagine également ay acte politique la ñu posé bu ñuy déclarer seen candidature Sénégal am ay urgence yu bari yoo xam ne moo koy xaar mais li leer.